fii moo nekk place bi nga xamante ne sénégalais yeeg gambien yeeg nigérien yeeg fii la ñuy liggéeyee waaye gis nga ko place yëpp benn benn benn place ubbiwut fu mu toll nii daal dalal xel guñ amoon confiance buñ amoon dañ ko xala ñàkk perte nañ ko si jamono bu may wax ak yow nii si place yi benn benn benn benn place jamono bi ubbiwut soo nekk na mbir mu doy waar nekk na mbir mu njàqarewu tuuti waaw jamono buy wax ak yow nii daal génn lañ gën a bugg ñu des fi wax dëgg neex yàlla parce que lu amul solution moom lu amul solution moom doy na waa trop pour nit di ko xaar si jamono bii wax dëgg fa yàlla waaye nag ñu ngee sàkku ñaan ci yéen ba pare tamit di gën a wax ne daal ngeen ñu ñaanal parce que lii ñaan rek a si mën dara nekkul ay garab gu ñëw faj la nekkul tamit ne am nañ place boo xam ne soo fa demee mucc waaw nekk na mbir mu doy waar daal waaw yàlla baax na nag